waay politique yi ci waxtu gi ñuy yootu nguur ku ko gëm rek yow la neex la ñuy faral di wax ngir woroo ak bile xalaat alliance internationale pour la renaissance du Sénégal fas yéene xaatimloo candidat yi ab pak ngir ñu dogu ci wàccoo ak seen i dige ki ñuy jiite ëllëg waruñu ko fal rek ci farfarloo dañ ko war a fal ci benn doxin bi nga xam ni moom loolu dafa war a engagé wu ak sénégalais yi que nii la war a doxee ak sénégalais bi foo mënti bokk ak foo le président de demain daf la war a déglu donc c' dans ce sens là lu ñu indi bi. bu campagne yi jotee candidat yi daañu dem taataan baatu askan bi ngir ñu fal leen R313 bëgg taxaw ngir lépp lu ñuy wax ñu def ko bu ñu faloo. souvent nag bu amee ay élection c' est que nit yi dafa am fu ñuy far ñii dañuy far fii wala ñiy far fële pour la première fois ñun ñu ni nanu leen def sacrifice bañ a far fenn ñëw mën a xool parce que bu dee kër dafa taxaw. xuloo am ci biir kër gi waa kër gi ñëpp ku nekk di dem di faat fenn problème bi ne va jamais se régler. pacte bi tijjil nañ ko bépp candidat bi nar a bokk ci joŋante falum jiitum réew bu atum 2024. donc candidat yi ñoo koy wara a euh, signé ñi nga xam ni ëllëg dañ leen war a jox nu euh, ñu koy waxtee ndombo tànk bi nga xam ni ñoom ñoo war a gérer le pays donc ces personnes la dañoo war a engagé wu. conseil constitutionnel daana joxe liste définitive candidat yi nga xam ne ni ñoom ñoo war a bokk ci joŋante bi ñaar fukki fan ci weeru janvier bu ko defee ñu mën a xam ñan ñoo war a xaatim bi le